عليك أمين الله ناصر حامدا بشير نذير ماحي الكفر يرعون مكي ويا مأمون حبي ومركزي فما في سوى هذه البرية أتمع أيا جامع الخيرات يا ملجأ الورى فصلني بحبل لا يرام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 ويوم كألف من سنين أعدته قصيرا فما نفسي بذلك تألم عليك صلاة الله ثم سلامه على رغم أنفه السلام عليك صلاة الله ثم سلامه وهل بعد هذا كله سوف أرجع عليك صلاة الله ثم سلامه مدى الدهر دين المصطفى القرم يرفع عليك صلاة الله ثم سلامه مقامك محمود لدى الحشر تشفع لا إله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 رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله طبيبي قريب هل سقامي تسمع يقابلني يوم وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk jullit lii nga xam ne moom ngeen tiim doy na xutba doy na soññaate juróom fukki bakkan yu suñu boroom yàlla subhanahu wa taala dogal nii ñu nekk suñu kanam naam muy juróom fukki bakkan ak juróom ñett moo am ci fanweer ak juróom benn yoo xam ne ay xale lañu ak ñaar fukk ñaar yoo xam ne ay mag lañu looli mbokk nekk na loo xam ne dana yéeme lool xam naa bokk na ci loo xam ne ku ne war na cee bàyyi xel nu ñuy def ba yu mel nii bu amatulit wàññeeku bokk na ci loolu doomu aadama yi de bàyyi xel bu ñuy génn yor ay këyit boo amul carte d'identité yéen ngay tukki nga wut foo xam ne bind nga fa say filiation sa adresse ñaareel bi fanweeri xale ak juróom benn yéen ñëpp yéen a xam ne xale yi duñu dem di dee inconnu ci mbedd kon ay way jur ñoom ñoo leen bàyyi foofu loolu nag lu ci bëri sabab ba dafay jóge ci li suñu borom lënkale ci aaya yu bëri ci téeram bu tedd bi mooy wala taqarab wala taqarabu zina innahu kaana fahishatan wa sabila gannaaw bu mu ne wala taqatulu nafsa allati allah borom bi subhanahu wa taala ne bu leen jege njaaloo ndax yoon bu bon la bu leen rey bakkan kon njaaloo ak rey bakkan gis ngeen nim lënkaloo yaa ayyuhan nabii ida jaaka almuminat yubaayinaka ala an laa yushrikna billahi shay'a wala yasriqna wala yasniina lu ci yàlla teg wala yaqtulna awlaaduhunna mooy yow yonent bi jigéen ñi bu ñu jaayenteeg yow nee leen bu ñu bokkaale bu ñu sàcc bu ñu ah, njaaloo waaye bu ñu rey seen bakkan looloo tax ñépp ñu dellu nañu wax ak jigéen niñ mën a waxal yàlla mën naa nattu benn soxna yàlla nattoo ko mu njaaloo loolu di bàkkaar bu rëy waaye ngalla waay yàlla mi ko nattoo loolu ubbil na ko buntu tuub na tuub tuub bu sell yàlla wëlbati ko doomam boobu yàlla barkeelal ko ko defal ko ko yiwu àdduna ak yiwu àllaaxira ama def bàkkaar ba pare daal di koy muure bàkkaar bu gën a garaaw loolu te mooy dem sànni ko dem rey ko mbokk loole musiba la boo xam ne ku ne war na cee wax ak njaboot gi donte ne ñi ngi ñaan autorité autorité yi tamit bari na ay nit ñu ñu xam ñu am ay doom prématuré ñu leen di laaj ay cent mille cent cinquante mille amuñu ko ñu bàyyi ko fa loole kon état bi lu ñu man naam ñi ngi def effort yu bari ci ndaw ñi waaye buñ ci boole woon it mboolem ñi dee ci crèche yi ñu bàyyi seen parents ñu jël ko sans ñu fayu leen mën na am lim dana wàññeeku mbokk jullit bala ñoo ñaanal ñi tëdd ñi ñuy jëkk a ñaanal mooy jàmbaar yi yàlla subhanahu wa taala yombalal ñu jóge seen kër depuis ay sept heures du matin jokkoo koor yi nga xam ne yéen dégg ngeen ci rajo bi ñu ne am na ci koor yoo xam ne depuis deux mille dix-huit ñu ngi ci tiroir yi waaye teewul ñoom ñu ñëw taxawu leen ba sàng leen ba indi lu ñu leen fii ñooñu yal na yàlla fay leen la ca yonent bi digle yal na yàlla defal leen ko nee na képp ko sang néew yàlla jagleel ko ñeen fukki njégal képp ko sutural néew yàlla dana ko wodd ca ko day àjjana ya képp ku denc ab néew yàlla dana ko may yoolu koo xam ne dafa fat miskin ba ilaa yawmi diin loolee mbokk nañ ci bàyyi xel bu baax gannaaw ba it yeneen mbokk yi ñëw teewe ko am na fi ñoo xam ne depuis onze heures ñi ngi fi waaye seen toogaay bi neenul de yonent bi alei salaam daana wax ne innakum fi salaa ma in antazartumu salaa féeg yéen a ngi xaar julli yéen ngi ci julli kon yal na yàlla fay leen ñu daal di def imaanan waxti saaban yonent bi nee ne ki nga xam ne fekke ne néew ànd a ngëm ak euh, yaakaar pay dana ko ñeel montagne bu tol na Uhud ba fekkee sul ba am ñaari montagne iman boobu mooy lan nga i nga gëm ne suñu boroom huwa lazi qaddara baynakumul mawt yàlla moo dogal dee ñi ñu tiim leen balaa yàgg ñun mbooloo mi taxaw yëpp daan tëdd comme ñoom ni ñu tëddee su ko defee kon ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala yërëm leen ngir ëllëg ki si biir ñu nit bu ñu tëddee yàlla boole ñu ak ñoo xam ne bu ñu ñaanee yàlla nangu seen ñaan loolee mbokk mi ngi noonu su ko defee itamit lii ngeen gis du liggéeyu doole kese liggéeyu ay effort la loolu moo tax ba képp kuy dégg ci kàddu gi na doon mbooloo mi fi teew wala ñu nekk bitim réew falilaahi alhamdu yéeg nañ ci ñu bëri ci yéen ñoo xam ne def nañ ay effort waaye nag effort yooyu lu mu gën a bëri day doon loo xam ne day gën a yombal liggéey bi te it la nga ci def bokk na ca yaakaar ya gën a màgg yoo xam ne dana la xaar sa kanamu boroom kon ñu jublu ñaanal leen dañuy kabbar ñu jàng fatiha kabbaraat julli suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam kabbaraat jagleel leen ak néew ak ñaan la gën a gàtt ca gën a ëmb ay mag ay ndaw ay góor ay jigéen mooy rek allahuma ixfir lahum warhamhum ña nga xam ne jàng nañu xam nañ la nga xam ne moo gën a yaatu gannaaw bu bu ñu paree ñu ñaanal suñu bopp ñaanal julit ñëpp même bu doon da ngay yem ci rabbi ixfir wa walil muminin yal na yàlla nangu suñu ràmm ci ñoom allahu akbar allahu akbar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 allahu akbar asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah man may Oustaz Mouhamed Gueye man may jiite mbooloo mi nga xam ne liggéey bi sell bi ngeen gis ni nga xam ne ñu ngi nekk nii man maa jiite mbooloo moom. waaw euh, lii ñu ngi ko tàmbalee depuis 2012 ba tey lii ngeen gis tey weer bu nekk wala ay semaine yu nekk wala jamono bu nekk day am comme ni muy amee nii boo baagtee nag 2012. ñu ngi yore mille deux cent neuf corps bis tey ji nii mooy junni ak ñaari téeméeri nit ak ñaar fukk ak juróom-ñeenti nit ci ñi nga xam ne ñoo nekk ni tey waaw euh, niñ ci jote mooy maanaam ñoom bu ñu faatu ni ba yoon jot ci ñoom maanaam yóbbu ñu yóbbu leen euh, hôpital dinañu fa nekk diirub ñeent fukki fan ak juróom su fa nekkee nag ñu defar seen papier su boobaa nag euh, procureur ci lay doolu autorisé ñun ñi nga xam ne ñoom ñoo moom liggéey bi ñu woo ñu nag bu ñu woowee nag ci la ñu day jël suñu matukaay def lépp pour ñëw jël leen jébbi leen seen borom. waaw ñun euh, ñun dañuy rob koor bu am ñetti atu yàlla ci biir hôpital ñetti at ren jii ñetti at ci biir hôpital. dañu koy jël yenn saa yi jot ko rob ko jël ko boromam comme ni ko imaam bi waxee loolu muy dëgg am na ñoo xam ne am nañu fa ñaari at ñii benn at ak genn wàll wala boog ñi ay juróom benn weer ñi ñetti weer waaw loolu moom suñu liggéey la dañu ko faral di jànkuwante lu bare bare bare loolu moom day am moom loolu moom dëgg bëri péng la incha allah. abe waaw. loolu noonu liggéey bi du gën waaw loolu mooy yeneen waaw waaw maanaam euh, ñun mbirum morgue du suñ yëf ñun li suñu yëf rek mooy ñu woo ne koor am na ñu dem jël koor yi waaye ñun suñu liggéey metti ak ñàkk metti ñun loolu euh, du lu ñuy contrôler ñun daal liberté wér mooy koor fi ñu woyee ci addina bi Sénégal gi ne am na ku faatu mbokkam feeñu fu mu mën nekk dinañu dagg suñu paas perte suñu temps def suñu lépp. fii ba raison yi dem ngir jëppal ko boromam ñun amul métti ak ñàkk métti maanaam loolu suñu liggéey la guddi bëccëg ñun dañu koy def. waaw ma ne bu nekkoon par ñetti fan ñeenti fan par semaine sax dañu koy def ndax ñun ñoo jaayante ak suñu borom warlul ko ngir def ko loolu moom amul benn jafe-jafe ci waaw bu mu jege ak mu sori amul benn problème ñun bu ñu sañoon sax mu soree parce que bu ñu sañoon ñu toog ay diir dañu rab doomu aadama waaye nag ndem dee ak dund ñoo ànd loolu ñun mënuñ ci mucc mu nekk tey mu nekk suba fu mu mën am na ñu dem jël ko rek seen borom loolu moom amul benn jafe-jafe ci ñun waaye woon incha allah waaw bisimilah non xam nga maanaam am na koor yoo xam ne ba bu ñu faatu dañu am tur suñu amee tur seen borom feeñul maanaam procureur bala mu leen di jébale foog mu def enquête bu yàgg yaa ngi wax ñu nit ñaa ko dañu nekk ñoo dañu nekk waa bitim réew faatoo fii ci Sénégal am xool bu dëkk yow mën na xëy ko foog nga def di def enquête on mbokk ñu dañuy feeñ wala déet rob te benn overnight boo xam ne bi def def na def na ci biir morgue ñetti atu yàlla parce que procureur moo doon xool daal mbokk bi war nañu feeñ feeñ wala déet mbokk bi ba ñu feeñee ñun la ñu autorisé pour ñu denc yoof gi lañ ko denc kon noonu rek lay demee di demee na ne voilà ma dama ci bay ansay incha allah euh, waaw tey jigéen ñi moom ñaar lañu euh, kenn ki xëy na defe naa dafa laboon mais kenn ki dafa lakk bi jeex waaw dafa lakk bi jeex boo ko sax mu mujjul sànq dañ ko dañ ko defar noonu da nga jébal ko boromam waaw ñaar jigéen moo fi nekk tey waaw mag ñi ñoo nekk euh, vingt vingt vingt deux xale yi nekk 36 waaw xam nga li imaam bi dafa leer maanaam imaam bi jeexal na lépp eh, liir mun mënta nekk inconnu liir bu nekkee inconnu rek ka ko sabab mooy ndeem wala mu nekk baayam maanaam bu nekkee inconnu ndeem ak baayam ñu tax mu nekk inconnu benn ñun dañuy jot koor yoo xam ne yenn saa yi genn wàll bi ngay jot maanaam mën nga am liir fekk da nga am bopp bi wala nga am liir fekk yaa ngi lu commencé bopp wàcc wàcc tànk yi kooku dañ ko jur sànni ko ci mbedd xàcc lekk genn wàll bi mu gis liir bam bi dañ ko sànnoon ci biir foos loolu ñun ñun ko jot ak liir boo xam ne bii xëy na yaayam da ko jur hôpital mu war am lu mu fay daw bàyyi ko fa ak ñoo xam ne ñi dañuy jur rek bàyyi fa seen doom war a fay dem seen yoon yii yëpp am na ci liir yi waaw kon nag liir moom bu nekk inconnu rek dafa am ñu ko sabab mais moom liir mënta nekk inconnu maanaam euh, am na lu may faral di wax maanaam ñun koor yi ñuy am ñun koor ñu am Sénégal bi ba mën dara kàpp ñun dong ñoo koy am na fi xeetu koor bu la jaaxal ci àddina ñu lay jàngat moom waaye nag ni mu mën a mel ni mu mën mel moo am dafa lakk moo xam dafa lam moo xam sax da am koor fu ñu teg ñu defal ko ci ay saaku saaku nga war ko organiser ni mu mën a mel ñun dañ ko dopp ñu am benn problème jafe amul problème santé amul benn jafe-jafe parce que yor nañu ay matukaay yoo xam ne yëpp dañu koy rek yor nañu ay produit yor nañu ay masque yor nañu ay lépp même balaa ñuy jël koor yi service mu ñëw pompe ba pare ñu door dem soog a koor yi suñu matukaay dañu koy jël état bi balaa ñuy jël koor dañu koy pompe ak service léegi daan rek ñaareel ba encore ñun balaa ñuy laal koor yi am nañu produit yoo xam ne ñun ñoo koy rek dañu ko ciy tuur ci ñoom jël suñu batukaay raxasoo kon côté boobu moom dañ ko sant la ginnaaw ba ñu yàlla aare waaye nag ñu wax yàlla boobu ba tey mësuñu am benn jafe kenn mësuñ jëlee feebar ci kenn mësul am te booba léegi fukk ak yàlla ak ñaar téeméer ak dagul mësul am benn jafe mësul am benn feebar te koor yi dama ne ñun dog ñoo koy am loolu sant yàlla la waaw xam nga ay njëg-njëg nag njëg-njëg nag yooyu man man man du ma dugg ci vie privée jàmm na njëg-njëg nag man li ma wóor daal man man euh, jot man dama dañ may jot ay ay koor yoo xam ne maanaam seen borom dañu may wax ne am naa hôpital borom nangam benn pôle Fouta bi Sénégal doomam waroon na fay 3 millions ci benn hôpital 3 millions 3 millions mu yéeg mu wàcc bi digga mu jeex tak dafa mujjee bàyyi koor bi koor bi man man nga laa borom yaa ngi benn bi rob nañu koor yoo xam ne ñaari seex ñaari seex seex de seex ñu bokk dégg bàyyi nekk seex war a lu bari ci benn hôpital ñun ñun ñun ñoo kon loolu li ñu xam daal mooy koor daal mu mën a mel fay naag fayul xale la ñun si loolu ma ñoom ñoo koy lijjanti waaw du suñu mbir donte ko nekk am na mais loolu moom du suñu mbir ñun daal leex li wër te wër koor bu ñu moo daal ñu mën a mel ñu rob rek denc loolu mooy suñu liggéey incha allah dégguma waaw xam nga élimaan bi dafa dafa wax loo xam ne li maanaam jeexal jeexal na rek maanaam doomu aadama suy génn jamono bi jamono bi jafe na jafe boo xam ne kuy génn lu wërti wër da nga war a yow yóbbu sa carte d'identité mënoo ko bind benn papier sa poche def sa tur sa sa numéro téléphone mënoo ko même sa téléphone sax def ci lu nekk mën a nekk waaye nag maa ngi leen wax benn affaire de ñun dañuy jot niiw yoo xam ne seen biiri poche bu ñu ko lambee day fay génne carte d'identité ñun xam nga li war a loolu mooy ña ña ña cay njëkk jot ñoo deful seen liggéey ñun dañuy génne xaas bari ci poosu néew yi di ci génne ay pay ay kayitu kër di ci génne ay carte d'identité di ci ay portable dañu koy ci poosu néew yi te bu ñu ko fa génne dañu koy delloo fa nga xam ne fa la ñu jëlee koor ya kon nag nit mën na génn yore carte d'identité ci poosam génn mu nekk inconnu def nañu Thiès def nañu fu nekk ñeneen encore seen adresse du baax maanaam da ngay da ngay dem déposé carte d'identité def ko ci kër ba nga xam ne yow fa nga luyee woon te doo nga fa luyee dong boo fu luyee donc nga jege fa dem si yoon nga faatu borom borom kër ëllëg xamatu la xamatu la comme tu vois dañu lay war besoin nekk noonu yow yaa ngi carte d'identité kon mën nga nekk bu wér soo koy def na wér koy def su boobaa na yàlla mën na la musal ci kàttan yàlla waaw euh, li koy la mën a yëgal te mën la koy mën la koy maanaam euh, ñun ñu ngi gërëm bu baax sénégalais yi ak jullit ñi nga xam ne liggéey bi tey ñoom ñoom bu dul woon ñoom lambay ñaw mm, niiw yi tey ñaata lañu tey. 59 59 benn niiw bu nekk soo ko amee tey sa kër nga war ko rop ñaata ngay dépassé. kenn laa wax kenn ñaata ngay dépassé. lu bon bon bon di nga dépassé mille trente mille. waaw 25000 30 000 ñun ci am ci lu mat 58 nga xam ne ñun xamuñu leen ñu war war leen defal lépp te ñun ko suñu koor yi li ñu leen di defal nit kooram ko defal day am zam day day am day day day am kaafoor day am lépp lu ci war maanaam sa niiw yi yii nekk ci dëkk yi boo boo defee ci sa niiw junni ñun niiw yi ñaari junni lañ ci def loolu nag sénégalais ñooy góorgóorlu di ñu ko jox yàlla waaye nag ma ma ma wax ne ilimaanu jàkk yi kilifa yi ah waa état bi liggéey bi wax dëgg yàlla ñun mënuñu ko dañuy dañuy dañuy dañuy wér ci yàlla rek mais liggéeyu état la waaye nag état bu ko defee ñu def ko bu ko deful ñu def ko dinañu gërëm nag koo xam ne kii wax dëgg yàlla dëgg moo neex yàlla ñun duñu ay politiciens te duñu politique duma politicien duñu ay politique duñu politicien waaye nag am na koo xam ne kii moom sa bi mu ndar kàpp kàpp liggéey suñu liggéey bi moo ci dugaloo mooy première dame première dame moo may ñetti ambulance may benn L200 nii wi ni ñu koy sànge lépp chaque weer bu def daf may woo ma ne ma kaa jël sàngaay yi boole même carburant yi dem ci oto yi chaque weer bi dem mu joxe ko boobu bu ñëpp def lu mel ni wax dëgg yàlla kon xool leen te yi yi nga xam ne mooy indi tey koor yi huit ambulance huit ñett rek lañ ci am huit yi des yëpp dañ ko abbu te ku la koy abal dañ koy jox kon nag mbir mi suñu mbir la kenn xamul fay faatoo mujj ëllëg kon mbir mi daa bëgg ñu def ko suñu suñu bopp waaye nag lépp maa ngi assuré nit ñi ne bari gëlëm bu tegu ci kaw mbartal ko jàpp mu dem ko jàpp mu dem yo yooyu amoon nañ fi benn rob mbuur hôpitalu mbuur ñu amoon fa ñeenti koor xam juróomi koor dañu liyee njag-njaay boo xam ne bii 100000 la ñu war a fay boo fekk dërëm nekkul suñu poos njag-njaay bi gaare na ba ñu war a départ imam fay mii moo ma woow mu ne ma foo foo nekk ma ne ko départ aguñu mu ma 100000 la ngi te ba ñu dem amuñu ko kon nag mbir mi yëfu yàlla la yëfu yàlla la kon nag damaa bëgg daal mbir mi wax dëgg yàlla ñu bàyyi ko xel ñun nag amul kenn koo xam ne kii liggéey bi dañ ci tibb dërëm di ci dugal sa poos ñaareel bi amul kenn ku ñuy fay nag état fay ñu kenn fay ñu bon volonté rek liggéey ngir yàlla kese bu ñu paree ñu raxasu ñibbi waaw lii rek la ngeen baal ñu àpp waaw waaw léegi euh, logistique bi lan ngeen a manqué bu ko defee tamit ñi waaw maanaam euh, ñun am ngeen baal ma maanaam balaa ngeen ne manqué ñun dañu amul dara bay manqué le loolu benn la ñun amuñu dara ñun li ñu gën a soxla mooy oto yu yóbbu niiw yi corbillard fi mu nekk nii yóbbu niiw yi mënoo am lu mat fanweeri nii wala boog juróom fukki néew ngay abbu abbu abbu abbu te nii bu ngeen xoolee ambulance yi dañu leen tegale nii rangale leen rangale waaw rangale corbillard boo def benn benn nit nga rangale ci lu mat juróom-ñaari nit xam nga loolu ñàkk pexe la mais fa koor yi dem ñun foofu lañ toll bi ci tege encore wax dëgg yàlla bi bi ci tege Euh, mooy ñun ñi nga xam ne ñun ñoo nekk ci liggéey bu ñu génnee ci àll bi di dem di dem bu dee Dakar kenn ku ne ngay làmb sa poche joxe joxe mais bu ñu am liggéey Thiès wala Diourbel wala Mbour ñun ñun suñu poche suñu poche lañuy ñuy du ñu yore benn dërëb fa la ñuy yend def lépp duñu lekk duñu naan duñu ndikk duñu añ waaye nag yàlla jaral nañu loolu te loolu suñu xaas rek mooy dem kon liggéey bi du liggéeyu benn bis ku ci bëgg jàpp nag ñaari numéro téléphone ba ñett mooy bi njëkk mooy sama numéro mooy 77 maa ngi tudd Mouhamed Gueye 77 656 31 51 kooku mooy sama numéro numéro ba ci tegu mooy numéro secrétariat bi mooy mooy Lamine Mandia mooy 77 673 59 16 ñaari numéro yi lu ci waay dugal ci kàttanu yàlla incha allah day dellu ci néew yi dem feneen. le directeur de l'hôpital Aristide Le Dantec Babacar Thiam moom tey vraiment mooy le directeur de l'hôpital Aristide Le Dantec def na effort daw na fu nekk chaque année ñii bu ñu ñëwee wallahi moom du mun a taxaw mais yërmande yàlla bu yàlla wax moom la jiital si ñii. maanaam doguma la. Mhm. Euh, Babacar Diagne moom rek mooy directeur bi nga xam ne bu ñu amee liggéey moom laa mës a gis mu ñëw taxaw suñu kanam wallahi tey bi bi nga jox na ma jox na ma waroon na ba ñaar ambulance mais dafa ñëw taxaw ba liggéey ba mu toll kooku moom wax dëgg yàlla kooku moom maanaam maanaam day defal boppam defalu kenn boppam yi parce que sapeur yi def nañu rôle boo xam ne bu intéressé ñoo ñooy for di andi di dugal si hôpital yi bu fekkente ne aujourd'hui tey dañu bàyyi ñooñu si àll bi kon ay vautour moo leen di lekk mais dañu organiser wu de telle sort que la euh, les sapeurs di Sénégal dañuy def seen rôle bu ñu foree ba pare fan lañ koy andi dans les morgues te euh, gis nga situation Sénégal lu mel ñaata niw moo ni moo nekk foofu depuis l'an 2018 ba tey kan la ñuy garder 2018 ba tey loolu dooy na waar kon lu ñu ñaan sénégalais yi nañu changé comportement ñu xam ne que ñun ñëpp yàlla lu mu wax wax na ko ba pare si moom lañ jógee si moom la ñuy dellu te bakkan bu mu sa dund dina mu sa dee kon ñun ñëpp dañu war a jàppoo nekk benn ñu bàyyi di politiser lu bëre ñu dugal suñu xool si yàlla ñii lu ñu def comportement bu baax la kon tous les sénégalais war na am comportement boobu mel ni ñoom amuñu moyen mais am nañu yàlla te yàlla mu ngi suñu kanam incha allah yéen aussi seen rôle baax na maa ngi leen di remercier bu baax a baax merci. man je m'appelle Diassi Seydou au bloc opératoire central de l'hôpital Aristide Le Dantec. yàlla def na dimanche gu jot dama fi ñëw di ziar suma yaay bu ma ci tombee damay ñëw taxawu leen mais bu tey bi dafa jéggi dayoo ndax Mohamed boobu ba léegi jël na sama numéro lu am dañ may informer mais damoo ko am dama ko dugal suñu groupe WhatsApp Medina. mais am ñoo xam ne démb ba léegi nelawuñ parce que mënuñu imaginer le lii am na fi wallahi azim dañu dañu mànkoo jël seen alal jënd ay lu ne yónnee da ko touché sax Omar mooy sunu trésorier groupe politique guñu xamuñu luy politique mais lii boo wóor te ñii liggéey ñi ngi liggéeyal yàlla te ku nekk nanga xool sa bopp sëñ bi sa ku ne am di nga am bës bi waaw waaw ci jeunes yi dama leen di woo boo xoolee armeel yi lu fi am foofu lay commencé dangay gis ñoo xam ne xamuñu fu ñu denc seeni i te loolu dafa ñaaw am na loo xam ne jeunes yi ku munti doon war nga boo amee say waajur ñu nekk fii ci sëg nga ñëw di ko nem di leen nemmeeku di ñëw di defar bàmmeel yi parce que ndakaaru Sénégal dañu réer boo xoolee am na ñoo xam ne xooluñu sax cortége ña nga jël ñii ña nga ña ngay xaar salu bi ñii ñu ngi dem ci plage bi te lii ku ne am nga bësam sa bës ngi ñëw nañ leen delloo xel yi ci yàlla te jàppale nitu yàlla yi nga xam ne lii ñuy def yàlla rek a tax ñu di ko def. nag dañ ne jëf ju rafet nañ ko wane. aussi man mi ñu jiital dafa doon diis ma ñëw ne leen xaalis bi yegg na te fekk yeggul. man ma préféré ne kon dinaa leen yónnee kenn ku ne ñu xam ne vraiment xaalis bi fi ñu koy dugal euh, yegsi na yàgg nañ fi ñëw nag bu ñu daan ñëw dañ ko daan teg si loxo nit mais dañu bëgg bu ñu defee vidéo pour que ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi yeneen dëkk yu dul France ñu di ñu fekk sa si li ñu nekk di ñu si gën a jàppale ndax ñun ñëpp kenn ku ne mën na féete fii ëllëg ñu ngi gërëm xarit Sembène bu ne Canada maa ngi gërëm sama xarit yi ne France yëpp ñoom ñoo ma jox enveloppe pour ma indi kër ku sa somme bi nga joxe xaalis bi mu ngi si numéro téléphone am lépp mu ngi si biir waaw dañ ko joxe te yàlla rek tax mais dañ ko wane pour kenn ku nekk rek bu ñu delloo bitim réew ñu xam ne vraiment xaalis bi yegse na moo tax ñu indi ko nii jërëjëf jërëjëf dëgg la man Pape Thiaw laa tudd rakku Adja Binta Thiaw laa yàgg naa ñëw si programme yi waaw non man dama yor sama association Yoff mais aussi tout le temps yu mel ni dama siy yëngu ku ma mën a jàppale ma jàppale te yàlla tax bi ma xamee mbir mi si laa woote ñi ma xam ñëpp comme dama ne si réseau sociaux yi ma dugal image yi ne leen fexe leen ngeen jàpp si lii parce que yàgg nañ si dem te xam nañ difficulté yi si nekk mais nag duñ la jox xaalis rek nga ñëw ne leen xaalis bi yëg se na ndax jamono bi neexul moo tax ma préféré chaque fois lu may joxe rek ñu teg ko si leer nañ moo tax kenn ku ne ma bind si enveloppe bi sa tur ak la nga xam ne moom nga fa joxe ñi jógee Canada ñi jógee fépp jërëjëf waaw merci jërëjëf jërëjëf